Peut-être que je ne reviendrai pas sur les points qui ont été évoqués depuis tout à l'heure, surtout nak le réseau. Et je pense que daaw wax interférence yi war parce que nous mënuñu dëkk di voyager mais à chaque fois que nous franchissons Richard Toll un problème au réseau dañuy dugg Mali dañuy dugg Mauritel. bu ñuy dem Gambie bu nous eggee Kaarang wala poste Kër Ayib dootuñu am nous am réseau orange wala pour nous connecter, il faut nous génn 4G bi ñu dem 3G pour ne serait-ce que données mobile madame la ministre un point bi mooy te ma que aussi corriger le plus rapidement possible Nous nom de domaine point sn tendre vers l'émergence, ou wala dañu pays émergents yëpp de domaine moteur de communication parce que l'entrepreneur, entrepreneur pour nous nous reconnaître à travers l'Internet, il faut nom de domaine accessibilité Taïs, moi, je ne peux pas comprendre. Notre domaine, point SN Didjar, 25 000 à 40 000 au Sénégal. Fico Mali Didjaye, 5 000 francs. Côte d'Ivoire Didjaye, 10 000 francs. Mais nous faites qu'un tenu, vous avez tout le conformisme. Avec les causes de la notre domaine, les jeunes entrepreneurs ont accès et ils ont répertorier comme nous. Un point toujours concernant Orange, c'est la protection des données personnelles. Parce que si vous faites identifiez-vous, mais si nous identifions, si nous voyons gis suñu données personnelles yëpp yi nga xam ak caractère personnel yëpp nek ci mbedd bi dinañ am problème man j'arrive pas à comprendre nit ki nan lay amee sama numéro de téléphone joxuma ko jëlee ko ci nit mais à travers l'internet mu génne sama numéro de téléphone. donc je me dis que y a problème un scandale pour man Peut-être ñu war a régler le plus rapidement possible concernant le réseau nak bi nga c'est ne Sénégal nous, ñëpp ñu yor ko muy Orange madame le ministre duma xarab kenn waaye nak am na ku fi wàcc léegi sama yaay ji wàcc léegi daf ko wax ah wala ci mais aawa nag defe naa kenn du ko xarab waye dinañ nako defaral sa togaay jek jekal ko aussi parce que nak concurrence baa fi tey jii boo xoolee bi phénomène concurrence bi gën a accentué ñu bari nee la dañuy migrer vers d'autres opérateurs vers d'autres opérateurs de téléphonie mais lool lepp liko waral moy défaillance yi am ci réseau bi tay bu nit ki di nga tok ben étape bo xam di nga am urgence sax wara woté ñu naan le vote numéro n'existe pas wala que vous ne pouvez pas émettre d'appel wala appel d'urgence donc il y a des problèmes il faut nous corriger et avant de descendre aussi j'aurais bien aimé je vais féliciter la Sonatel qui a eu à faire un séminaire de formation pour une mise à niveau pour les parlementaires surtout les femmes parlementaires mais di wax rek ni warul nekk un début. peut-être que c'était un début mais nous, ñu war di def parce que nous sommes fekkente représentants du peuple jigen nek volet boo aspect bo xamanteni mom moy véhiculer lepp lu mu bëgg véhiculer bo bëgg lepp lo bëgg mu jall si jigen nga koy jaarale donc yakarna koku dafa nek ko xom koo à chaque fois que de besoin war nga ko di ko jël diko capacité pour mu véhiculer le sa véhiculer véhiculer la sa yenn message tout à l'heure aussi amna na ku ko wax muy concernant les radios communautaires c'est vrai dañ nan nekkuñu ci yéen directement mais c'est des radios yo xamanteni ni tey bo boo dugg surtout le département de Pikine bi ma dëgg bi ma dëkk ñom ñëpp am nañ problème et su may wax je parlerai de la radio Oxygène bi nga xamante ni tey mu ngi def abattre liggéey bu am solo dans le département de Pikine mais boo fa duggee pour nga am photo, ça sax c'est un problème pour ñu enregistrer benn émission normalement sax c'est un problème et madame le ministre je pense que nous, ñooñu dañu nekk cible boo xamante ni dañu leen war parce que nous ñoo gën a population bi avant ngay dem ci radio commerciale bi nga yem ci rajo communautaire bi wax sa waa askan non seulement vous les leen sensibiliser si li mais di nga bëgg sa message fi nga bëgg mu egg si muy profondeur du territoire de fa donc madame la ministre ce sont ces quelques données là que je voulais partager avec vous je vous remercie madame la présidente